yi ñu di suivre chaîne bii dal leen jàmm ramataal jamono ji nag def na loo xam ne nag man fekkoon man waajur du ko def na parce que war warta fekk ki nga xam ne moom mooy Marème Sall ñëw si biir këram nag diri doom ànd nag li nga xam ne nag moom mooy doomam daal di ñibbi waaye loolu est-ce que jaadu na wala jaaduwul ndax parce que daal yenn saa filoo bi yenn saa da gis koo xam ne euh, day ñëw tooñ après daal di dañ koy tooñ mu daal di tooñ ñaar di te Ramata lii mu def nii waru ko woon def si jëm boppam na parce que tey jii doomam la comme que moo demoon ba jël décision am ne day ànd ak na koo bàyyi pour mu toog waaye nag dafa am ay convénients yoo xam ne ma gis yi parce que tey jii nii moom su def woo gëm naa ne su def woo gis naa ne ki nga xam ne nag moom mooy Marème Sall mun na dem sax ba sàqal pexe ki nga xam ne nag moom mooy ah, doomam moom si jëm boppam moo tax film bi jamono jii dafa jaxasoo loolu sax képp koo jox dëgg sax ni nga jox keneen ki ah, leneen loo xam ne moom mooy loolu waaye nag ki nga xam ne nag moom mooy Ibrahima Tall si jëm boppam yaakaar naa waru woon ko defee nii dafa war waroon toog këram carrément wala convaincre ki nga xam ne nag bu may jëkkëram ak yooyu dafa indi ma sama doom saa demee noonu te parce que lii mu def nii fekkoon tey jii nii Marème Sall dafa reporté ne ko doom bi du dem wala sama sët genre demee noonu day nekk loo xam du doy waar la waaye nag. lii mooy waral ni yenn saa yi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, goro yi si biir kër gi dañoo nekk ñoo xam ne ñu doy waar la su nekkul côté bii rek nekk côté bële te loolu noonu yëpp rek si suñu société bi si lay euh, delluwaat si jëm boppam moo tax sëyu xale yi bëri ñu ñu ngi tas dama jàpp ne manque Euh, lii nga xam ne nag moom mooy expérience waaye tamit manque tamit li nga xam ne nag moom mooy euh, ay mag yu leen daal di di waxtaanal di leen dajale naan leen lii léegi na góorgóorlu sëy moom mënut a ñàkk nii wala naa wala naa ba loolu suñ ko suñ fi jógee sax ñu daal di nekk daal di mën a tegu ci li nga xam ne nag moom mooy yoon bu baax waaye comme nii nii nii rek mer dem jëli sa doom wala sama doom du ànd ak yooyu kon day nekk saa su nekk dañuy nekk ci li nga xam ne nag moom mooy ci problème si jëm boppam de problème jamono ji nag kenn ku nekk war na ko mën a éviter nag doo xam lan moo si xew ku weddi nag na laaj ki nga xam ne moom mooy ñaga ci am mu tiiree bal ba jay ba daal di fay ah, daanu ñu daal di xam ne sax jay na ba dafa ëmbee jërë ngeen jëf yi ñu safoo di suivre seen